télévision Al Mouridiyyah niñ leen ko waxee woon xam ngeen ñi ngi ci waajtaayu ziar bu mag boobu nga xam ne Hizbut Tarqiyyah mu ngi koy waajal euh, ci kanamu Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu diggante ak bis bi nag euh, matatul euh, matatul bis mata maanaam matatul 24 heures ndax ëllëg la incha allah ci bu nu xëyee ngeen gis nag ne ñu ngi waajal rek fi nga xam ne fi mbooloo mi war a ñëw ak fi nga xam ne fi la sëriñ bi war ñëw fi la waa kër sëriñ Tuubaa yi war a ñëw loola waral kon ba tey rek ñuy wéyandi ci suñu jataay yi nga xam ne si ay jataay yu gàtt lay doon waaye bu ci nekk rek dangay gis ne day fees dell ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk liggéey bi euh, di ko doxal ci nga ñi ŋànk liggéey boobu nag suñu ko waxee mag ñi ci la ñu bokk jigéen ñi la ñu bokk góor ci la bokk góor ñi ci la ñu bokk jigéen ñi la ñu bokk waaye gone yi aussi ci la ñu bokk loolu waral kon ñu daal ne nag euh, faaw ñu jël gone yooyu ndax euh, ñi nga xam ne ñoom laa am fi ne nii ci sama kanam fas yéene waxtaan ak ñoom ci kanam tuuti nii da di gis ne ay tenue la ñu sol ay baalaat la ñu sol naam ndax ci daara ji la ñu juddoo fi la ñu yaroo fi la ñu màggee lépp lu ñu xam ci daara ji lañu ko xamee waaye da ngay gis ne ñi ngi seen tenue tenue de travail la ñu sol kon bu leen ne gone yi sañse wuñu ah kay gone yi danañ sañse xaar leen ba subaak jàmm incha allah waaye fi mu ne nii nag dañoo nekk ci liggéey moo tax ngeen gis leen ñu nekk ci seen tenue waaye kenn ku nekk it takk ndigam ba mu dëgër eh, akuk der ngir wane ne maa ngi ci liggéey bi te it fasuma yéene kenn man ma ci loolu waral ñu ànd tey ak Serigne Cheikhouna Sow mu bokk ci sunu gan yi nga xam ne si fas nañu yéene uh, séq ak moom waxtaan ànd it ak uh, Serigne Cheikhouna uh, Sylla moom Sylla Sylla bi nag xam naa ne wax loo ko fi mu ne nii xaw a jafe ndax añagut Sylla Sylla bu añagut moom pour wax loo ko dina jafe lool waaye dana wax incha allah ànd it ak Serigne Cheikhouna Sagnane Serigne Cheikhouna Sagnane moom it bokk ci gone yi nga xam ne si dañoo nekk si daara ji ràññeeku lool ngeen xam ko sax seen télévision Al Mouride ci njàngu alxuraan bi ak njàngu xasida mi saa su nekk mu ngi ñu gunge ci li nga xam ne moom mooy waxtaani koor gi suñu koy def euh, su ko defee kon ñooñu lañu fas yéene seqal waxtaan euh, tey jii euh, ñoom it ñu wax ñu ñoom en tant que ay tutank en tant que ay gone nan la ñu fas yéene sóobu ci li nga xam ne si moom mooy liggéey bi kon ñu def benn tour ngir mën a nuyoo sëñ Cheikh na asalaamaaleykum wa rahmatullah mm. amiin yaa rabbal aalamiin di nga ñaan yàlla suñu borom kàttanal ko dëgëral ko bu bëgg a liggéey suñu tubaab mu àggale ko nu mu ko bëggee allahuma amin amin jërëjëf jërëjëf sëñ Cheikh Ouna Sow ñu lay sant bu baax nuyoo bi matale na sëñ Cheikh Ouna Sow salaamaaleykum wa rahmatulah sant bu baax di ziar mbokk nga xam ñoo seetaan seen télévision Al Mouridiyyah di mhm. jiite si nuyoo bi Serigne Mountakha Mbacké nga xam te ne mhm. mooy kilifa yi suñu kilifa ñun ñëpp mhm. di nuyuwaal ki nga xam te mooy Serigne Youssou Diop nga xam te ne moo jiite daara Hizbut dëgg jërëjëf euh, joxal ma micro bi sëñ euh, Cheikhouna Sylla moom it mu nuyoo sëñ Cheikhouna salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam siyaar nañ siyaar nañ bu wér sëñ ñu ngi lay delloo bu baax di jiital nuyoo bi sëriñ Mountakha xalifa général di mu di baaxoo nuyoo tamit ñi nga xam ne ñoo baaxoo seetaan seen télévision Al Mouridiyyah TV. dëgg la bu wér. ok jërëjëf sëñ Cheikhouna Sylla ñu ngi lay santaat bu baax a baax euh, sëñ Cheikhouna Sow xam naa ci yow la ñuy tàmbalee rek. yàlla dafa maa dimbali nag tey euh, ba ay ay Seexuna rek laa fi dajale dégg nga sëñ Seexuna Sow sëñ Seexuna Sila sëñ Seexuna Siñaan ma ngoog euh, sëñ naa xam naa euh, li nga xam ne moom mooy siyaare bi yéen en tant que ay ndaw ngeen nekk ci daara ji dafa yeewoo seen activité yëpp di daara ji bi ngeen ko njëkkee dégg ci làmmiñu responsable moral si Youssou Diop lan la def ci yéen waaw ñuy nuyu di la wax ne ni nga ko waxee rek ba ziar ba ko suñ jëwriñ suñu Yuusu waxee ba tey ah. noppaluwuñ hmm. ndax mun ñoo noppalu mooy suñuy waajur noppaluwuñ ndax ku fekk ku fekk say waajur du noppalu kon hmm. yow waroo noppalu dëgg la kon ñu fekk nañ suñuy waajur noppaluwuñ kon hmm. duñ noppalu ah. loolu moo tax bis ni ki tey mu ni ñu gisee nii ni nga waxee woon sa bijal bi mu ne gis nañu soo etini travail takk suñuy der si loolu itam moom lu ma wax la mooy liggéey bi dañ ko tàmbalee ba léegi nga xam ne lépp di jëm si wàllum liggéey bu dee defar aménage yi aménagement yi waaw ñu ngi si léegi tamit nga xam ne tam am attan na suñu doole ànd am na ko ñu si yi xam ne tam moo jëm si wàllum joxe addiya am na lu ñu sasoon mhm. loolu itam yàlla dogal na joxe nañ ko mhm. ak lépp loo xam ne tam lépp li ndaw li war def si si si gis bi rek mhm. ñun la ndax liggéey ne makkase la ndaw la ndax suñu maam yi njëkkee bañ ko daan def at at yi amoon buñ koy xool si ñun daanaka yoo lay toll waaye pas-pas ak yéene lañ ko doon defee dëgg nag ndaw yi léegi ñoo ko war a dekkal mm. ndax dekkal gi ngay dekkal mooy lan mm. mooy nga mën a sax si liggéey sëñ Touba mm. mën a tax bu say waajur nekk nga fexe see ànd ak ñoom wuy si leen mm-hmm. ndax ñun ñii si liggéey bi lañ judd si lañ màgg si lañ toqtal si lañu nàmpatal dëgg kon ñun liggéey bi rek lañ am liggéey bi lañ xam kon fii rek mm-hmm. lañ am mm-hmm. loolu moo tax ziar bu ko suñ jëwriñ waxee suñ yuusu ba léegi ñun dañ ne moom xaw ma lan waaye ñun jàmm amuñu ci waaw waaw muy la am solo muy la am solo bi ma ñëwee maa ngi leen fekk ci euh, fii ci mba ci mbaar mi euh, ngeen nekkoon ci wàllu électricité ki mhm. yow ci ban ban côté nga féete ci secteur yi ak fi ñuy liggéey waaw man moom ñu ko euh, nekk waaw électricité nga nekk si laay yëngu ah, waaw si laay yëngu waaw lépp lu jëm si wàllu léegi lu jëm ci wàllu installation courant beeg yooyu fu ngeen ci toll waaw daanaka moom lépp daanaka sori na ah. daanaka parce que li si des moom tuuti lay doon ah. ay taal lay des ak yooyu rek waaye lépp li xam ne moom moo jëm si wàllu installé moom lépp mm. nopp na muy écrangien yeeg muy lampe yeeg mm. muy lépp loo xam ne itam war naa dem si biir ah. ay décoration yëpp mm. noppi na moom yooyu moom noppi na taal lekk des d' accord ma ngoog waaw kay jërëjëf sëñ Cheikhouna Sow danañ jël si waat ci yow léegi nii sëñ Cheikhouna Seyane xam naa da nga yokkaale kàddu gi tuuti nag euh, comprendre nañ añagoo euh, waaye foog ñu wax ci kaw tuuti waaw kay euh, ni ma ko laajee sëñ Cheikhouna Sow léegi rek ziara bi bi ngeen ko déggee bi te yéen ngeen nekk bi nga xam ne daanaka mën nañu dara du leen fi ump euh, lu ñu yëkkati ci information rek mu génn ci euh, gémmiñu responsable moral euh, Serigne Youssou Diop dina yegg si ba ci yéen ndax noonu ngeen koy dundee bis bu set mu bëggoon a xam rek siyaare bi bi ngeen ko njëkkee dégg yéen la def ci yéen ak nan ngeen koy waajale waaw ziar bi de bi ko njëkkee dégg moom mhm. maanaam ni ko suñ jëriñ suñ Youssou Diop waxee rek nu mhm. ko raw lañ koy fekk see foofu mhm. nga xam ne ziar bi moom maanaam nekkul loo xamante ne ñun ñoo xam suñu yuusu ñu fee jiital mm-hmm. wala moom lañu fi jiital lépp lu ñu sant rek dañ koy def mm-hmm. ak suñ pas-pas ak suñ mën-mën mm-hmm. nga xam ne ndigal rek moo ñu fi bàyyi fekkee wàllum ziar bi moom ñu ko suñu yuusu bëggee moom incha allah noonu lañ koy defee liggéey bi duñ bàyyi suñu tànk fenn ci ginnaaw nga xam ne ñun moom ay ndaw lañ waaye uh-huh. ci liggéey bi lañ bokk ni ko suñu mag yi suñu paap suñu waajur yi nekk mhm. rek fa lañ bëgg a teg suñu tànk ñun tamit nekk fa comme ñoom mhm. fépp fépp fu ñu jaar rek ñun tam bëgg nañ faa jaar ànd fa ak ci liggéey mhm. dëgg la ci waajtaay bi nag moom ñi ngi ci daanaka sori nañ trop parce que bi biñ bi waajtaay bi desee maanaam biñ jàppee ziar ba léegi ñi ngi ci ba léegi bàyyiwuñ suñu tànk benn yoon ñi ngi liggéey bi bañ ko jàppee rek ci lañ jug taxaw fas yéene ànd ak ki nga xam te ne mooy suñu yus ci liggéey bi koo jàppale Mm, dafa li nga xamante ne mooy ni nga ko bëggee daal. Mm-hmm. incha allah ci def suñu ndax foofu ci biir daara ji aussi doon ngeen def ay ndaje di ci di ci waxtaan ak yooyu. waaw waaw. Mm. ci biir ci biir daara ji waaw dañ fay def ay ndaje. Mm-hmm. chaque alxamis. Ah. dañ koy def ñun xale yi. ñun ndaw ñi ci def ndaje di waxtaan. Mm. dem nañ sax ba li nga xamante ne moom la ñuy asné suñuy waajur. ñun tamit mm-hmm. asné asné nañ ñu ci mais li ñuy asné moom daanaka mooy mooy suñu passeport ci liggéey bi rek. daanaka matal nañ ko daal. waaw. d' accord accord yow it ci secteur électricité ci fi nga fi nga fi ngay jàpp fi ngay liggéey. waaw man ci secteur électricité ci laa nekk. moom laay kii daal d' accord mais damay jàng nag mais damay leen ci jàppale nga xam ne kon daara ji moom da ngay jàng waaye dañ lay former wala tamit ci benn secteur boo xam ne si da nga mën a liggéey après. loolu lu solo la. joxal ma sëñ Cheikh na si la si la si bi añagoo euh, de. ah waaw waaw mu ngoog euh, waaye ñu ñu waxtaan tuuti rek ci seen yëngute ci ci daara ji ak seen yëngute tamit ci wàccaayu wàccaayu siyaare bi yow yow foo ci toll ak noo ko yëgee. waaw siyaare moom comme ñoom suñu soxna wax nañ lépp daanaka. Ah. siyaare moom ñu ngi ci ginnaaw suñu yuusu rek. Ah. moom lépp lum mu jaayante sëñ bi moom. ñun mm-hmm. pare nañ pour ànd ceeg moom. ndax Hizbut Tarqiyyah mooy doxee noo xam ne. Mm-hmm. ñoom ndigal rek. bu mm-hmm. ndigal xasee jub. daanaka amatuñ dara lu ñuy taxaw di xaar ndax suñ bàyyi ñun ñoo nekk ak ñoom daara ja ak mhm. suñ yaay mhm. xam na ni ñuy doxalee ba suñ yuusi lancé ziar ba tey mhm. tëddatuñ daanaka lépp tuñ ba suur ci ziar bi lañ nekk si la ñuy wax si la ñuy dox suba ngoon ñu ngi ci ñun tamit niñ koy doxalee noonu lañ koy doxalee si la ñuy dox niñ leen assigné ñun noonu la ñuy assigné ñu koy taxaw suñu morom am suñu jëwriñ suñu biir taxawuñ lépp dëgg la dëgg la waaw euh, léeg-léeg tamit day mel ne maanaam dañuy dañuy mel ne lu leen xaw a fàtte tuuti gone yu ndaw yi wala liggéeyuñu wala yoruñu xaalis waaye dafa mel ne yéen ci wàllu cotisation yi nanguwu leen kenn man leen ci ci wàllu liggéey bi tamit dafa mel ne kenn nanguwu leen kenn man leen ci waaw waaw ndax wàllu cotisation bi moom am nañ jàmbar nañ ci trop hmm. ndax suñuy assigné rek ñun dañuy bàyyi suñu bopp nga xam ne xale yi comme ñoom suñu seexnaa saw moom yor na zone suñu seexnaa day yor zone ma zone léegi ñu tax ñu ci biir xale yi hmm. nga xam ne école bi ñu wàccee ñun hmm. nga xam ne ñooy taxaw suñu bopp kenn moo ñëw rek di ñu di wax lii ak lii mais lépp ñoo koy doxal suñu bopp kenn du mm-hmm. ci mais fekkee wàll liggéey bi moom mm-hmm. maa si soxna ñun moom ay lañ mm-hmm. waaye bu suñ suuru noppali bu jotee kenn du ci napp daara jotee boo fa demee am na ñeneen ñu fa nekk nekk ci wàllu togg bi fii tamit boo fi ñëwee am na ñeneen ñu fi nekk ci wàllu installation bi ah, fi ñu kenn toogut mhm. ñëpp a yëngatu gën a takkaat laxasaay rek ah, te xam ne fii ak ziar moom dara des ci liggéey Sëñ Tuubaa rek loolu kese ñor dëgg la dëgg euh, tamit ne waxtu xam naa léegi mu léegi mu jeex ndax li ñu am ci ci ci temps dafa bariwul dara euh, sëñ Cheikhouna ci yow laay ñëwaat rek euh, ci soññee yoo xam ne sii da nga ko def ci ndaw ñi nga xam ne sii ci daara ji la ñu bokk moo xam daaray Touba wala seex ci yeneen daara moo xam Tamba wala Thiès wala Rufisque wala dakaar wala yooyu te bëgg a ñëw ci siyaare bi ñooñu lan nga leen di lan nga leen di dénk. waaw loolu moom. ni mu ko jiite sama bopp soññe bi. ndax ku jëm ziar. Mhm. daam na war a doxee. ku jëm ziar bokkul ku jëm sa mbedd ma. bokkul ku jëm sa caaxaanukaay ga. déedéet sa tuñ tuñ Tuubaa nga jëm. te ku jëm suñ Tuubaa am nga noo war a melokaanee. Mhm. am nga noo war a ñëwee. dëgg la nga ku ñëw mhm. mag la ndax nag kilifa gi ngay doon. ak responsable bi mm-hmm. loolu rek mm-hmm, mm-hmm. moo tax euh, ku jëm loolu moo tax. képp koo xam ne muy sama moroom muy keneen ak keneen. suba ak jàmm bu ñu si yàlla bàyyeekum jàmm bu ñu àgg saak jàmm. képp koo xam ne ndaw nga ngay ñëw. nga xam ne jëmoo sa caaxaan rek. dëgg la sëñ Touba nga jëm dëgg la. ndax suñ Muntaxa mi sëñ Touba la. te si ku mat sëñ Touba la. kon ku ñuy jëm si moom. war nañoo mel benn melokaan. dëgg la bu bokk tax ba ñuy doxee sa mbedd ma. dëgg la loolu moo tax suba. sooba yàlla képp kuy ñëw. da mel ni melokaan yu murit d'accord am solo di doxin doxinu murit mm-hmm. ànd ak yar ak teggin ba képp koo xam ne ñëw nga ko fekk ko si muy liggéey mm-hmm. mu yor ab posam wala mu yox la dara mm-hmm. dama la dénk ñu ngi jëm suñ tubaa bu ko xool jëmm ja xool ko suñ tubaa ndax nit ki kenn ku ne boo xoolee si jëmm nit rek da ngay juum waaw nit ku ne boo koy xool da ngay xoolee suñ tubaa te boo xoolee suñ tubaa rek doo juum dëgg la kon ñun ñi ñu ndaw ñi képp koo xam ne ñëw nga suba gis am mag bu ne la jaaral nii wala toogal fii wala defal nii bul xool lam la wax mhm. wala bul xool lam la def loo xoolal Sëñ Tuubaa moo ma tax nga jëw dëgg la dëgg la boo xoolee Sëñ Tuubaa rek lu la waay mhm. def du la la waay wax itam da ko def da nga ko waaw ndax Sëñ Tuubaa la indi mhm. dara indi la kon loolu nag sama bu ñuy ñëw kan ku nga xam ne jëmu fenn Sëñ Tuubaa nga jëm kon ni ko suñuy bàyyi def nga xam ñëw dañuy doon ay responsable sol ba murité ñëw yar teggin toog toog bu dal doo dégg coow doo dégg bur doo gis ñu bëri doo gis ñu yor ay téléphone di kii wala nga nekk fii di waxtaan ak ñàkk fayda lu ñuy def dañuy teewlu mhm. ñu yor seen i xasida mhm. ñu yor seen i jukki di jàng xasida mhm. kon nag loolu ñun ñii ndaw ñi war nañ koo mën kon ñun ndaw ñi war nañoo xolaat fi ñu teg suñu tànk mhm. xamaat itam lan la ñuy doxee nan la ñuy waxee nan la ñuy jëfee mhm. dëgg la kon loolu am na solo lool am na solo soññee am na solo macha allah suñu seex naa suñu seex naa sañaan yow it xam naa da nga yëkkati rek ay kàddu yu soññee ci gone yi nga xam ne si ñoo nar a ñëw ci waxtaan wi non seulement du yam ci ci ci ziar bi du yam sax ci gone yi waaye ñi nga xam ne rek mbooloo yi nga xam ne euh, ñoo nar a ñëw suba ndax fii nag mbooloo dana fi daje de mbooloo mu bëree bëri na fi daje waaw yan soññee yan kàddu yu nga leen di jox man kàddu soññe yi may joxe woon yaakaar du bari comme suñu Cheikh naa Sow ni mu ko waxee rek damay ñëw rek. Mhm. gën cee indiwaat ay soññe rek. maanaam képp kuy ñëw rek na ànd ak yar ak teggin te ndigal li joxe rek ñu topp ndax fii moom histoire xii moom murid ndigal lañ wax. lépp bépp ndigal bi suñu Yuusu joxe rek ñu topp ko te ànd ak yar. ànd ak teggin. képp kuy mhm. ñëw rek na ànd ak yar ak teggin. Mhm. incha allah loolu daal laay soññee moom. d' joxal ma sëñ Cheikh naa kàddu gi. moom tamit xam naa dana soññi rek ci gone yi nga xam ne si ñoo nar a ñëw ci siyaara bi ndax gone dafa dafa dafa dafa bëgg buuxante ah. buuxante ak xat-xatloo moom euh, léeg-léeg dañu koy bëgg loolu waaye dafa am suñu seex naa wax léegi nii muy que ne kuy ñëw ku nekk nga ànd ak yar ak teggin ndax xam nañ ne li ñuy wut si fii am na fi ndax sëñ Youssou Diop euh, responsable moral noonu la koy waxee saa su nekk li ñuy wut si sëñ sëñ euh, sëñ Cheikh Mamadou Mountakha na fa waaye nag boo fa demee te jotoo ci rek du ci sëñ bi de waaye ci yow la mhm. kon yaakaar naa ay kàddu soññee war naa jub foofu bu baax a baax pour ñi nga xam ñooy ñëw waaw comme ni ko suñu si xanaa waxee rek. Mhm. ndax suñu si xanaa wax rek lay ñëw mooy mhm. teggin gi. Mhm. teggin gi moom mooy lépp. dëgg la ndax ñun xale Hizbut Tarqiyyah ay roykaay la ñu war a doon. ndax beneen xale bu jugee fee ñëw ci ziar bi. su ñëwee ñun ñoo ko war a teete. xamal ni ko ñun affaire nii lay demee. ba ñun gisee suñu melokaan. am na ni muy réagir dina xam ne ñii nii la ñuy doxee. mais ñun xale Hizbut Tarqiyyah suñu jiitalee ñàkk teggin gi. su keneen ku ñëw rek noonu lay royee ci ñun. moo tax teggin gi moom lañu war gën a dolli. te xam ne barab bi ñuy ñëw barab ay kilifa fi dajaloo mm. suñu bàyyi fi dajaloo suñu mag fi dajaloo mm. moo tax teggin ki ci ñun xale la war a jiitu mm-hmm. bala muy dem ci keneen mm-hmm. ndax mbooloo moom fépp fu ñu dajaloo mm-hmm. xale yi isbitar xewam ñu ngi leen di ñaan rek ngi jëm Serigne Touba dëgg la dëgg la nañ roy seen bàyyi suñu leen royee rek lépp ñëw dëgg la ni ko suñu sewnaa waxee colin yeeg doxin yeeg lépp toog na ziar bi yàggut. Mhm. ay minute la rek. waaw yomb naa muñ. Mhm. ay minute moom yomb naa muñal nit. loolu kase su jeexee nga xam noonu la demee. dëgg la dëgg la waaw loolu rek laa ci sooy am mucc soññi. muy la am solo ñu leen di santaat bu baax a baax a baax euh, gis ngeen kàddu yi ay xale la ñu naam nag. moo tax euh, seen seeni i soññee gis nga euh, teewul dafa am solo dafa am solo ci niveau bi ñu toll tamit ci niveau boobu la ñu waxee waaye da ngay gis ne ay kàddu la yoo xam ne si mag te fuy mën a dégg. waaye mag daf koy mën a jàpp mag daf koy mën a timit jariñoo li ma leen ci waxoon it gis ngeen ay euh, tenue de travail lañ sol ñoom ñëpp ndax ñi ngi woon ci liggéey bi waaw dama leen di euh, jël nii rek forcé leen indi leen euh, pour ñoom it ñu barkeelu waaye ñoom it ñu indi ay kàddu yu soññee wax tamit seen préparation ak wàll gi nga xam ne si moom la ñu jàppee nga fan lañu ci toll waaye ñoom ñëpp tenue de travail lañ sol nii ah gis nga waaye suba nag incha allah mooy bésu sañse bi suba moom danañu sañse ba rafet bu soobee yàlla waaxu ndànk ñëw ak si jàkkaarloog sëriñ bi déglu ko taataan ay kàddoom mu ñaanal ñu ñu mën a tàqalikoo ci jàmm incha allah kon ñu ngi santaat bu baax a baax Serigne Cheikhouna Sow mu nekkoon sunu ganuk tey euh, ak Serigne Cheikhouna Sile mi moom tamit euh, nekkoon sunu ganuk tey ak Serigne Cheikhouna Sagnane di sant mboolem ñi nga xam ne rek ñu ngi seetaan incha allah dina am yeneen waxtaan yoo xam ne si ñoo ciy toppaat ci kanam tuuti ngeen teewlu ko euh, ñu leen di ñaanal bëccëgu jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah